asalaamaaleykum mbokk yi teel a àllarba fukki fan ci mooy muy tam tamxarit di weer wi njëkk ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn ci gàddaa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juillet ci ñaari junni ak ñaar fukk ñeent fukki fan bokkul ci lim yu fàtte yi lim bu rafet la kon tey ci àllarba ji rafet na li ñu ci gën taamu mooy ku ca daloo li ñu ciy teete rek wàccandiku moom àllarba mooy ku ca sangu wala ku ca fóot wala ku ca tàggoo wala ku ca watu ñaanuk bis bi yow yàlla maa ngi lay ñaan nga defal ma xam-xam bu am njariñ maa ngi lay ñaan nga musal ma ci xam-xam bu amul njariñ allahuma inni asaluka ilman nafia wa audu bika min ilmin la yanfa allahuma inni asaluka ilman nafia wa audu bika min ilmin la yanfa xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woor bisu fukkeel ci tamxarit jàpp naa ne sunu boroom dina ci far bàkkaari at mi wees xadis bi muslim nettali na ko qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam siyaamu yowmi ashuraa ahtasibu ala allahi an yukaffira sanata allati qabla rawahu muslim waxtu julli yi suba waxtu na tàbbi 5h34 juróomi waxtu yu tegal fanweeri simili ak ñeent